dama ne maa ko wax maa ko wax maa ko wax dama ne Ketchup def nañ yexi fi ci Angleterre nak ah ñu ngi and ak génération consciente. ki ne andal nak moy Papa Diouf. deug la di ndaanaan bi. kon dama ne tay def nañ yexi groupe bangi pap loy wax ci bes bi tay wa mais Baye yow wax nga lepp deug na londre Londres paré nañ la mhm. deug yalla sañ sey paré na salle bi nice na vraiment Babs aussi ak xaritam jigenam aram. liggéey bu mag lañu ñu def Félicitations, Médoune uh-huh. félicitations ñom Kourouma Kétiop hein so wax dëgg yalla bayiwuñu kenn kenn kenn kenn Ndiog malik ñu ngi lay remercier bu baaxa baaxa baaxa baax ñi ci japp ñi nga xam ne bëgguñu sax ñu tuddu seen tour ndax li moy Sénégal li moy Gambia man wu ma wax gaa yëpp a C'est uh-huh. le complet uh-huh. balance la ñu jëm bu jéxé kon da ngay balance man mënta ñak doo dem nelaw yi tuuti sax. non nelaw bàyyi ma waay. Eh. mën nga ñëw pour liggéey. <laughs> yow xam nga ne du ma nelaw nelaw mais Medoune mais loo wax. mais li def ñëpp waxay dëgg. waaw Sénégal bi yaa damaa bëgg ñëpp teel a génn. ndax Pape Diouf ñëw na. te yéen a ko doon xaar. Pape na dafa ñëw pour bëggal leen. dëgg la dafa ñëw pour tëggal leen ba ngeen bëgg. dëgg la kon nag yéen ñëpp génn leen ñëw enjoy Pape Diouf bëggal leen ñëpp xam. jeex na mais Babacar borom téléphone yi. waaye gis nga ko de doom day. bu rek jeex na. sorry. bu jeexee as as as fii tey as fii tey dina mel ni tuq sa bënn sañ bëre nga ni nga ni nga ni rataki sa tapa sa ba ken ta sar ke ke tarwa tapa ba macha allah macha allah macha allah Yo, the king is right here, man. The king is right here, man. The king is right here. This is ketchup. Do yomb de? Do yomb? Xoolal saal bi mu mel. Let's see. Let's see, let's see, let's see, let's see. ñu tere ñu tere ñu tere ñu tere ketchup. Baye Seck daa gis baayam Baye Seck baayam la gis. non mais Mandiaye taloo ma ko sax. xam naa la lu bees. mais chéri mais rafet na de. mais bépp si yaa ko nii yaa defati sa mën café meew.